Euh, je remercie euh, l'homme politique euh, Pape Doumbouya pour son initiative, donc devenu ici pour représenter la journée, interne, euh, la nationale pour la propreté. Le 5, donc le, le président Domaï avait dit que cette journée était réservée pour la propreté de toutes les écoles. Il est, il est venu ici avec son staff, avec leur matériel pour euh, balayer l'école, pour nettoyer, pour faire le déservage Donc, on remercie pour cette, euh, on, on, on le remercie pour cette bonne initiative. Merci beaucoup à monsieur Pape Doumbouya. Chaque année, il vient ici avec ses ces, ces, ces, ces, hommes et les femmes pour balayer euh, euh, l'école euh, et nettoyer. Vraiment, Pape Doumbia, l'école Gabriel John vous remercie. C'est un ancien élève, mais depuis, il ne cesse de travailler avec l'école. Même pas pour nettoyer, mais pour apporter. Pour apporter. Donc, vraiment, on vous remercie. merci beaucoup. waral mooy comme ñun doomu koñ bi lañ. dëkk fii jàngee ci école bi dañu baaxee chaque année duñu bëgg si lépp ñu fi yàlla maye rek fekkee ko bëgg nañ ñëw fii vraiment di nettoyer waat école bi ah cadre bi appuyer xale yi ba nga xamante ni bu école ubbee. nañ nekk ci benn condition boo xam ne danañ permettre ñu mën a commencer école bi parce que ñëpp xam nañ ni nawet bi duggoon na école bi délabré woon na laajoon na vraiment ñu defal ko tuuti entretien ah pour que nit ñi bu ñu ñëwee après ñu nekk ci yenn condition optimales c'est parce que c'est important madame Fall nag c'est une dame grande dame chaque année fi lañu koy fekk vraiment mu ñuy accueillir te à chaque fois bu ñu ñëwee ton bi benn la te liggéey bi benn la taxawaay bi aussi benn la donc loolu li ñu koy def mooy remercier ñi nga xamante ni lañ fi fekk yëpp imaamu koñ bi ah délégué yeeg euh, responsable yi nga xamante ni tey ñoo gere école bi ñoom it vraiment ñu fekk leen fi ñu indi leen équipe. tamit doon ko nettoyer c'est à saluer donc ñu nit chaque année lii dañ ko baaxoo di def donc école bi moom sunu école la dañ ko bàyyi kenn ci kàttanu yàlla chaque année bëgg nañ li nga xamante ne mooy lépp luy apporter école bi benn hygiène benn taxawaay benn setaay tuuti propreté dinañ ko indi pour que apporter concept ubbi tey jàng tey mu nekk vraiment une réalité. loolu moo waroon tey ñu def ko comme aussi mu coïncider ak euh, euh, journée interne journée nationale de set setal bi. donc loolu bokkoon na ci lu tax ñu gën ko def mais aussi loo xamante ni euh, impacté na ci li ñu doon def chaque année donc ñu ngi remercier ñëpp di remercier parents d'élèves yi di remercier ñi nga xamante ni waa Thiès sa kanam yëpp yi nga xamante ni tey ñoo ñëwoon bokk ci li nga xamante ni mooy liggéey bi vraiment ñu ngi remercier ñëpp. waaw non gaal bi moom du solution wax nañ ko def nañ ko concept bi euh, taxawal nañ ko depuis boobu ñu ngi ciy wax ñu ngi réaliser. Euh, di accompagner parent yi ci yooyu vraiment muy lu metti nag parce que gaal gi moom c'est extrêmement difficile mais aussi il faut que ñu am benn hauteur mooy jéem a xool nu ñu accompagner jeunes yi tey waaw c'est vraiment loolu la parce que nit aussi mën te jàng def formation am def lépp toog aussi xamul lu muy def mais su fekkente ni secteur bu ci nekk ñun ñi nga xamante ni surtout les hommes politiques am nañ benn taxawaay ku ci nekk sa koñam am loo taxawal jël ay xale dugal leen fa dina am benn impact bu mu joué ci ñi mais à chaque fois bu ñu fi nekkee taxaw di dem di dikk di leen wax toog leen def leen lii te appuyé wuñ leen vraiment du am benn benn impact donc loolu aussi ñu ngi ciy lancé un appel ñi nga xamante ni au delà de ce que mais au delà de nous aussi hommes politiques qu' est ce pour notre quartier loolu rek la ñu amoon lu ñu ciy am et maa ngi remercier maa ngi remercier ñëpp remercier ñëpp ñu ci fekk di ñaan lii ñu def ren déwén aussi mu fekkaat ñu fi ñu mën di ko appuyer di ko perpétuer sur les ans ñu ngi remercier ñëpp